pire que fekk nit si néegam da ngay gis euh, koo xamante ni publication réseaux sociaux lañ ko jàppee. loolu ah, moo gën a na ma lire il parle yow justice ngay liggéey. il parle de magistrat yu war a prendre obélisque. non non non non waxuma moi moi je ne parle pas au cas par cas. moi je parle d'une manière générale. d'accord aujourd'hui Macky le résumé de Macky Sall li nga xamante ni moo koy caractériser c'est les arrestations. yaa ngi fi wax léegi quatorze morts il faut voir que Sénégal ñun on est en train de réécrire d'écrire une page de l'histoire du Sénégal mm -hmm. revisiter l'histoire Sénégal président yi fi jaar yëpp Senghor on retiendra toujours de lui qu'il est le père de la nation mm -hmm. Abdou on dira qu'il a bâti une administration et posé les jalons d'une démocratie. Oui. Abdoulaye Wade on dira qu'il a renforcé la démocratie et engagé les grands chantiers. Mm-hmm. dans ce pays. Aujourd'hui quand on parle de Macky nit ñi lan la ñuy retenir. tëj nit ñi prison yi tëj nit ñi prison loolu mais avec avec avec Senghor y a eu des emprisonnements. non avec Abdou Diouf sa Ablaye Wade yàgg naa dem kaso avec Ablaye Wade Mbaye Diouf tëj nañ ko dañ ne Idriss Seck Macky été un peu inquiété. je veux dire li ngay wax nii c'est pas propre à à Macky Sall. non déggoo li ma la wax le TER c'est Macky AIBD euh, Macky Sall moo ko yeggali l'autoroute Macky Sall na ci lu am solo BRT mi ngi ñëw donc faut pas réduire euh, le bilan de Macky ci ay arrestations yooyu je ne cherche pas à réduire le régime de Macky à ça mhm. j'ai dit que régime bu nekk dafa am loo xamante ni moom moo la marqué quand aujourd'hui en âme et conscience on vous parle de Senghor vous direz que c'est le père de la nation 100 pour cent des Sénégalais koo si loolu la retenir si. seen comme ça n'importe qui dafa njëkk a falu rek. waaw non non je loolu la histoire. gën a retenir si Senghor. quand vous parlez de Abdou c'est vrai amoon na emprisonnement mais bi mu demee boo defee parce que nit boo koy juger il faut faire la balance c'était la défaite de 2000 loolu c'est très mhm. ce qui est bon de ce qui est mauvais et quand vous faites la balance si Abdou Diouf peut-être dañ lay wax que ne c'était un démocrate dañ lay wax ne moo defar suñu administration mhm. Abdoulaye Wade quoi qu'on puisse dire boo tuddee Abdoulaye Wade les gens vont penser au renforcement de la démocratie au au jalon des grands chantiers quand vous parlez de président Macky Sall c'est vrai am na lu mu def mais nga teg ko la balance ñun li ñuy retenir ak li ñuy bàyyil histoire mooy que ne président la bu mënoon tëje euh, président la boo xam ne buy dem élection day tànn ñi muy demal élection Et ça, loolu moo caractérisé aujourd'hui le Sénégal. Le Sénégal était une exception mm en matière d'élection. Euh, je pense que ne on a toujours euh, fait des élections ak une pluralité de candidatures. Mais quand ay nit toog seen biir nekk ne élection yi de ñu bëgg ko ñu bañ ko cinq candidats ñoom ñooy dem ñu dem à l'arrivée cinq candidats am c'est que ñoom ils ont des pratiques malsaines. Ah li nga wax ci Abdou Diouf euh, Senghor ak Abdoulaye Wade est-ce que c'est pas le temps qui li mu bëgg a wax mooy une bonne réputation est-ce que du après nostalgie bi moo koy bâtir parce que Abdoulaye Wade bi mu fiy jógee Sénégalais yi ko mere on parlait de l'évolution monarchique du pouvoir on parlait des des émeutes de l'électricité on parlait de la vie chère on parlait on parlait on na mais peu de temps après les Sénégalais ont oublié avec Macky Sall aussi est-ce que bu ñu demee ba am keneen nag koo xam ne xëy na mooy pire ci la Sénégalais soog a am regret. non non moi je dis dégg li ma la wax. li ma dégg naa ko mais li nga wax nii xam naa ko parce que bi fi jógee. un régime dañ ko mere woon. un régime avec le temps après ils ont changé d'opinion. moi je dis Ablaye Wade dañ ko mere woon. oui parce que parce que il a tenté loo xam ne. Sénégalais ànduñu ci Sénégalais oublié. ànduñu ci Sénégalais ànduñu ci. aujourd'hui lan moo tax ñu fàtte ko. c'est parce que aujourd'hui on est euh, en train de revivre la même situation. parce qu'aujourd'hui on a entre guillemets pire que lui entre guillemets pire. waa pire est dund loolu ëllëg aussi. Euh, non non non moi moi je vais pas du ma du ma du ma. def mais je veux dire que que ni nous si on se bat pour que changer ce régime là parce que personnellement ñun on est du parti socialiste. Mhm. lu yomb suñ ko bëggoon wala nguur wala bëgg pouvoir demoon ànd ak ñoom. parce que dañu gis que ne lii am na lu ko gën. moo tax on es en train de nu battre suñu leeroon ne lii ñëw ëllëg mooy gën a bon on va renforcer ça on se bat pour des convictions. Mm-hmm. on se bat pour des convictions parce que man demoon APR xalifa Sall nekk dans le pouvoir moo gënoon yomb. suñu moo gënoon sedd c'est vrai. <laughs> Ah. on a fait un choix ah, mais maître man li tax may revenir souvent euh, ci euh, juriste bi nga dëggal toggaay boobu noonu mais yéen da ngeen am lecture bu xaw wuute ak bi nga xam ne politiciens yi dañ koy am mm-hmm. ma bëggoon am sa sa avis ci ñaari question bi ci njëkk moo soxal yépp ay interpellation la ah bi ci njëkk mooy arrestation Pape Ndiaye sama sama confrère bu Walfadjri mm-hmm. par rapport aux propos yi mu tenir ci justice mm-hmm. euh, fiñ ci toll fiñ ci yegg ndax jaroon na ko. jaru ko jaru ko du tout parce que moom laa lay wax et ça me mooy que gis nga réew boo tolloo foo xamante ne nit ñi lu ñu wax rek yaa ngi toog di le propos de Pam Ndiaye man xam nga kañ laa ko yëg kañ laa ko yëg biñ ko jëlee ba téye ko parce que ñoom ñoo jox see propos de hmm. l'ampleur am na sénégalais yu bëri yu bëri yu ko donc euh, aujourd'hui la masse concerné aussi tooñ na leen la malchance du Sénégal ça, la malchance du Sénégal c'est que on est en train de de de faire une mutation le Sénégal étant un pays boo xamante ni pays de dialogue la mhm. pays de consensus et de recherche de consensus aujourd'hui le pouvoir est en train d'ériger la prison comme un outil euh, de régulation de la société et ça c'est très dangereux c'est très dangereux Pape Ndiaye c'est un journaliste d'accord dafay wax il a cette liberté d'expression kii wax kii wax non non non bàyyil ma terminer et xam nga wax dafa jafe kii wax mooy faqastalu si wax mais une société su amul tolérance et cette tolérance dañ ko war a si ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si kaw yóbbu prison rek moo fa nekk. Sénégal tey aujourd'hui nit ñi ragalatuñ prison parce que la prison est devenue banale. mais lan moo ko waral fa laa jëmoon ak yow parce que bu ñu demee ba tey jeté discrédit si ñi nga xam ne institution yu dëgër fi nekkoon y a problème te on a vu avec cette nouvelle opposition euh, kenn baaxatul la presse buñ ñu tollee foofu c' est c' est grave aussi. waaw ouais, mais là mais les causes aussi foog ñu taxaw ci. waaw les causes moom laa lay wax les causes moom laa lay wax gis nga bu fekkente ne da nga jàpp ne une société li koy defar mooy ku jóg nga dóor ku faqastalu nga dóor ku ku juum nga dóor. mooy que ne fort aussi ah booy tànqamlu bu yàggee. non non non non on dit di que ne l' état dafa war a dafa war a tànqamlu Euh, on a mis des des des tribunaux on a mis des prisons pour di corriger nit ñi pour que ku jum mais dama dama jàpp que ne laa démocratie ak jamono fi mu toll la liberté d'expression kenn mënatu ko téye. kenn liberté d'expression est-ce que ça signifie wax loo xam ne amul. non non non ba léegi xam nga xam nga <laughs> xam nga yaa ngi insister man dugguma si cas Pape Ndiaye. parce que dès l'entame de cette émission dès l'entame de cette émission moi je vous ai dit que en tant que juriste. en tant que sori ci yenn yi c'est vrai bugguma sori si yenn dossiers yoo xamante ni dañu nekk euh, en cours. Mhm. et le dossier de Pape Ndiaye dafa bokk si dossier yooyu moo tax man li may wax je dis d'une manière générale moi je je fais partie de la justice aujourd'hui j'ai pas intérêt. à que ñuy banaliser cette justice la mais il faut il faut le reconnaître aujourd'hui euh, qu'on le dise ou non euh, cette pratique qui consiste à utiliser la justice contre les uns et contre les autres à protéger certains dafay décrédibiliser cette justice et daf ñuy metti ñun. c'est que man lenn moom xaw a jaaxal.